bërëb bi albaqiyatu la bu ne bërëb bi nag bërëbu Cheikhul Xadim la ndax ci histoire li ma déggale li ma dégg li ma dégg ñu nettali ko ndax loolu laa mën a wax te ko tamit bërëbu bërëbu Sëñ Tuubaa moo ko dëgg dëgg nag moom loolu dégg naa ñu koy wax waaye lu ci man doon daal bërëb bi bërëbu ko tedd ki la Ahmadou Bamba ñoo ngi ñaanal nag ñi fi tëdd yàlla na yàlla dolli ci ñoom yërmande ju yaatu doole maam Cheikh Ibra Fall barkeb yi waaye yërmande jooju tamit ñoo ngi koy ñaanal ñi demagut moo xam ñiy waaj moo xam ñi waajagut ndax fi mu am na ñuy waaj am na ñoo xam ñu ngi waaj am ñoo xam fi mu ay ñetti at lañ daje ñi ay ñaari at ñi weer ñi semaine ñi ñaari fan waaye ñun moom yàlla nañu ay at dese ci daar duniyaa at yooyu nag yàlla nañ ko def ci loo xamante ni bu bis ñëwee yàlla atte ñu duñ ci am gàcc ak yaraanga doole maam Cheikh Fall la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah illallah illallah la ilaha illa la bal illa la bal illa la la ilaha la ilaha illa la la ilaha la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la illa la bal illa la la ilaha illallah faal illallah faal illallah la ilaha illallah illallah faal illallah la kii jot li kàddu yi nag mooy Baye Cheikh Ndaw sant Ndaw di Ndaw di dawalal ki doon Ndaw muy Baye Cheikh Ndaw mi daan dawalal Cheikh di yëpp jaam ñi ci wiiw di leen jëme ci wiiw ndax kii dawal day sàkkoo yëpp waaw nag ci lim la yeb nag am nañu la ca mën a yeb waaye buñ la yewee te mënuñ laa yóbbu <laughs> da naan dan naan la yebbi nan la léegi yow yóbbuñu ndax xam nañ ne ñun buñ yebee duñ fees la la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah koy jël di ko tisaare jaamu yàlla di ci teg seen bët ñiy jullit war na xam nañ ne lii lu war la mooy set setal gi ñuy setal euh, barab yi mooy fii muy feneen ak feneen fépp fu mu ci jullit set setal gi nii dafay doon lu war. dafay doon lu war nag mooy bés a ngi ñëw ala kulli haal ñii ni leen yàlla def dina leen def noone ndax kullu nafsin saa'iqatul mawti ah génn kenn kenn muccul ci loolu ñëpp ay dem ñoo ngi ñaan yàlla nag bu ñuy dem yàlla nan demee ci ngërëmul yàlla. ci doole maam Cheikh Rafal barki xasida yi waaye lii lu am solo la te mata sol fi nga xam ne yow leer nañ la kii dafay tëdd am ñax sax fi ñu war koo yeesal ndax dafa am loo xam ne boo koy yeesal da lay yeesal dégg nga wax jéem dafa am loo xam ne boo koy yeesal rek mu lay yeesal ci sag yeesadi li nga jot a yeesadi moo xam ci yeesadi waaw yees ndax yeesadi yeesadi sax yeesadi xol moo bon. xëy xaw a tilim nii sax garaawut waaye yeesadi gi gën a bon ci yeesadi mooy yeesadi xol yàlla ñu ci yàlla musal léegi ay armel nag boo koy yeesal yàlla dalay lay yeesal ca yeesal ga yeesal armel ya ak feneen mboolem barab boo xam ne dañ fay jaamoo yàlla nga gis mu xaw a am taq-taq nga yeesal ko yàlla dalay lay yeesal ca yees ga ko yeesal la ilaha illallah la ilaha illallah la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 kàddu bi bàyyi ko ci Cheikh Mountakha Mbacké jëwriñ Sëñ Touba ji dafa saal mu rëcc jaar ko jëwriñ moom seen ay Fall yi muy seen indi Fall mu seen Modou Mbenda jëme ko ci mboole jullit yëpp ak murid yëpp ndigal lii Sëñ Touba joxe woon ne ñoom ci saral dëkku Touba bii ak seen moom gane bale nag ci wolof moom may may may bale ba bale ak bale bale rek ñu bal la ñu xam daal ku bale ñu bal la te Sëñ Touba kat dëkkam bii lu ko ñor la bëggoon na fi dëkk lool ci ak nekkam waaye mënu foo nekk ci bi mu ne ndax liggéey bi nga liggéey sallallahu alayhi wa sallam waaye gannaaw ak nekkam lañ ko indiwaat ci dëkk bi mu dëkk si bi kon nag waruñoo bay dara dafi tax mbaam ko jegee lu sellul kon nag sëñ Mountakha Mbacké mu ngi soñ mu ngi digal murid ñu ñëw bale Tuubaa ku bale rek daañ dañ la baal yomb yomb nag ndax fii ne ku ñëw ba jëf yow wàcc nga ku yéene saw ñàkk wàcc nga ku toog joxe noonu wàcc nga ku joxe ndox joxe café joxe suukar ku joxe biscuit waaye mën a joxe rek te liggéey bi tax bokk ci bokk ci liggéey bi waaye ñàkk cee bokk nag dara jëru koom a ndigal sëñ Tuubaa li kat njëriñal tey ëllëg rek la ndax sëñ moom bu nu nee lu la wuyu mooy kaay lañ jël leen wax kaay lañ jël waaye bu nee nag duñ ko may duñ ko sarax duñ ko abal duñ ko jaay njëkk nag mooy jëfe ak bëggam suñ defee li mu bëgg rek sans borom jëf defal leen li mu bëgg liggéey bi na lool tam nañ ko altine talaata àllarba tey jii noo ngi bu ñuy wax bàqee bàqee yaakaar naa ko xam ci murid yi baa ñu dégg ndax yaakaar naa yi kenn ku ne bu nga fi am néeg ci kër gi nekk muy bàqee yàlla na yéex nag waaye du mën a ñàkk waaye yàlla na yéex kon nag nan waayaat te dégluwaat ndigal bu subaa buñ xëyee lu ñu wax fa ne xëy ñu xëy waaye lii moom mën naa mu wàgg tey waaye des na nag ci dëkk bi nag ay barab ndax des na fu ñu wax Tuubaa ay des na gendarmerie des na tel def fi ñuy wax fu ñuy wax arrondissement def fi ñuy wax Touba Awal el Touba héliport loolu lépp ci liggéey bi la bokk noonu na daa balee kon bu ñu àggalee fii bu subaa fa ñuy xëy su àggalul fii bu subaa bu àggee noo àggale ji loolee kon nag sëñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sama liggéey bii liggéey sëñ Touba ñu kon ko mën te yàgg ko def lool yéen waa tey Touba Brésil tey bi nag sëñ baa ngi sant di leen gërëm ndax li leen fi indi bëgg a leeral sëñ Tuubaa ndigalam li ba murid dégg ko ba nga koo jëriñoo kon nag itam yàlla na sëñ Tuubaa dimbali fa ngeen ne dafa jàmm ak xewlu yaatu yi ma liggéey sëñ Tuubaa ngeen dima ka ñëw di fekk sëñ mi di indi xewlu yaatu waaw jërë ngeen jëf noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp suñu fàllu faal jërë ngeen sëñ bu demee jërëjëf la la wala ñoo bay Mamadou Balla Fall la ilaha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 la ilaha illallah la ilaha illallah